terminal Adrien Senghor Ngagne Sène ak Ibou Senghor numéro 2 jël na ko dina ko daan war na ko ndombo Ibou Senghor bañ na xale ba jël na ko war ko mu bañ eh Adrien Senghor Ibou Senghor jël na ko xale ba bañ na ay waay arbitre puusal waay ndaysaan ñaari mbër yaa nga ca arbitre atte na ndeysaan Ibou Senghor numéro 2 ak Ngagne Sène ndeysaan final Ibou Senghor ñaari mbër yaa nga ca yaa nga ca na jël ko jël na ko jël na ko dina ko daan daan na ko ngañ sey daan na Ibou Senghor cey waay dexaandun sare Borno mbaaji leeno wama flen job no si dexaandun mbaaji leeno wama anaandosare porno mbagileno wama frel jom no side xandosare porno mbagileno wama frel jom no side xandosare porno mbagileno wama frel jom no side xando mbagileno wama blel jom no side xando sae korno mbagileno wama blel jom no side xando sae korno mbagileno soxna si de xaandu say no mbaaji le naw waa ma feejo no si de xaandu say ko no waa ma feejo ma teeri nga na ma fo ateri ayore magna mabogado Mama Belgium ateri ayore mu mel ni tey yàgg ñu ngi woon fi nga xam ne mooy Adrien Senghor un million lañ fi tegoon ki nga xam ne mooy ngañ seen moom moo ko daa moo ko jël ci kaw Ibou Senghor Ibou mooy gaan nday faatu Adama Jëli nday faatu bu Kaolack nday faatu bu Sine Saalum bu làmb ji maa ngi lay nuyu di la ziar yaay booy. waaw sama doom maa ngi lay ziar delloo ziar bi di ñaan yàlla jàmm di ñaanal àddina si yëpp jàmm di ñaanal sama fans yi yëpp jàmm ak képp koo xam ne rek yaa ngi supporté woykat boo bëgg ci sa xol rek maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal at Sénégal yëpp jàmm ndax bu borom réew mi bu amee jàmm rek ñun ñu am jàmm yàlla na fi jàmm sax. day faatoog waaw woy yi de dama ko jàng bu dee woy làmb moom wax dëgg ak yàlla dama ko jàng waaw maa ngi ko jàngee ci sama xarit moo ma ci dugal mu yaaxaandam waaye soriwu ma ci mais sama métier bi maa ngi ko sottalee ci groupe Khady moo ma eggali sama métier moo ma jàngal woy Ah, ni ngay yëkkatee ak ni ngay tegee yëpp ci loxo Khady Diouf la jóge kon lu ma ci mun rek yàlla ak moom yal ko yàlla yërëm te fa mu nekk yal na ko gënal fii yal na riccu li mu toogee woon fii. tey su ma laajee waykat yu bëri ci yéen ñu ci bëri dañ may tuddal Khady Diouf yal na ko yàlla yërëm mu mel ni kon yéen ñëpp daa mel ni ci ay loxoom ngeen gimmee. xanaa xamoo ne xëy na ay ay quelques nit ñooy sonn ay quelques nit ñooy sonn ñoo naan woykat bi wala woykat bi wala woykat bale mais ñi nga xam ne namp nañ ci Khady Diouf muy seetaankat muy promoteur wala mu nekk euh, euh, supporter wala mu nekk koo xam ne amateur nga boo nekkee ci àddina yàgg di seetaan làmb nga xam ne képp ku toog fii tey bu nekkul groupe may dem képp ku toog Sénégal tey di yore micro di wéy rek ci Khady Diouf nga jaar ci benn wen bi lañ namp c'est-à-dire que nit ñi ñooy sonn rek mais ñun ci suñu biir ñun ci benn wen bi lañ namp ñi dañoo namp ci gauche ñi namp ci droite waa ñi nekk ci xol bi téye ko mu boole ñu nag nandal ñu ci lépp nag lu ñu mbunti am. mu mel ni des fois fans yooyu ngay wax des fois mu mel ni lu xaw am ay ñi naan fans Ndeye Fatou ñi naan fans Mbaye ak Loum ñii di tudd Agnès maanaam ku nekk ak ñi lay eh, affaire boobu nu ngeen koy dundee yéen seen biir. mais xam nga ne nag loolu. sens bu métti boobu. loolu Sénégal lañ ko fekk loolu mënuñu koo dindi. mënuñu koo dindi ci ñi nga xam ne ñooy supporters yi mënuñu koo dindi ci ñi nga xam ne ay amateurs lañ nit koo gis dama la ne jaaykatu caaf ba ca mbedd ba sax am na ku ko bëgg ba li jënd li mu bëgg kon ñun ñi nga xam ne ñun ñooy liggéey li ñuy liggéey ñun ñooy muus ñun ñooy xam li ñu bëgg ñun ñoo xam li nga xam ne loolu la ñu war a def pour nit ñi mun a xam ne ñun benn lañ rawatina di nag man mi nga xam ne maay mag man xale yi ku ci mun munti def na rafet ku ci mun munti def lu ñaaw it danga koy def ndax sa bopp mais man day faatu Adama Jali ci lu baax rek laay bëgg di def parce que rek ragal naa pour defati lu ñaaw ñemeetuma ko ñemeetuma ko ragal naa ko moytu naa ko te dama ko rus parce que li tax ma ruus ko mooy ka ñi ma bëgg xam nga lu may xalaat fu ma tëdd damay xalaat li may wax bu ma toogee ci géew bi parce que bu bor setee dañ koy nettali wala ma ruus a wax def loo xam ne samay supporters dañuy xëy gis ko ci man wala ñu dégg ko ci man wala ñu gis ma di ko wax ñu di ko seetaan wala ñu di ko dégg ci seen nopp kon ki ma bëgg dama koy rusloo mais ki ma bañit te du la ku ne nga bëgg la mais àddina si Sénégal ñëpp xam nañu séeréer cosaan rek te woykat bu fi toog woy cosaan woykat bu fi toog it yàlla dimbali la am nga talent kon nag ñun ci suñ jëmmu bopp ñun ñooy xam ne ñun ñun la nit ñi di jàppale. nit ñi ñun la ñuy jàppale kon na na rafet. sa diggante ak Mbayang Loum man Mbayang suma doom la Mbayang sama doom la bokk naa ci ñi ko jox njëkk a jox micro ne ko woy kaay woy bokk naa ci ñi wax ne ko Mbayang woyal yor nga dënn woykat yor nga filingu woykat bëkk naa ci yaayam la yaayam su ma mag rek la mun a doon mais teewa mënu ma jur mais nag mbay man mun naa koo jur yaayam laa ci aar bi yaayam laa ci âge yaayam laa ci woy yaayam laa ci lu ne nag kon quelque soit alpha ñun ñuy woy ñun ñu bokk tey jii tey à part Faya maa fi mag te est-ce maa gu sax maagu maguma ko kon nag man mii mag bu rafetee man la su ñaawee man la mais en tout cas ragal naa def lu bon man ragal naa ko te moytu naa ko te rus naa ko. des fois nga way ba yaram wi tàng nga commencé jóg yëngut. waaw pour bégal amateur yi rek parce que nag damaa indi ci làmb loo xam ne benn woykat mosu ko fee def ma dem ba am cinquante et kon bu ma indee loo xam ne benn woykat mosu ko fee def fi fierté la ci man dama kontaan dama am kontaante boo xam ne dama koy santir bu ma toogee di woy parce que boo toogee di woy lu tol ni public nga yëkkati leen ñu yuuxu ku ne di wax la mu bëgg génnee ci li nekk ci xolam. xam ne lii damay seetaan làmb kon loolu fierté bu mag la loolu kontaante bu mag la loolu ndam laa ko def tiitar laa ko def parce que tey bu ma toogee tey jii boy woy ñune ne ndey faatu as bi mu toll te xam naa ne ku am 15 ans bu ñu toogee ci géew it ragalu ma la parce que ki ma ko jàngal la nag balaa yaramam doon gën a tàng dëgg géew bi tàng mbër yi di di di xëccoo fii ñii di dem fii yaram yi gën a tàng muy woy ba nga foog ne bëtam yi day génne safara kon kooku ku mu jàngal woy boo mënul woy bala nga nekkul wala nga woyoo cosaan wala wax ko daf la neex rek ngay wax li la neex rek waaw Guess sama doom la Sénégal dañuy foog ne Guess sama doom la xarit la daf ma defal lu ma kenn defalut. wax yaay booy wax ma loo wax Guess woyu ma wax ma loo wax Guess. Guess yaay jàmbaar fa ñi ke xum na kanke fap na mbes ka o koor ma noona e gees ñaay jambaar fa ñiige xumna kanke faap na mbeska o koor faap ma noona ye gees ñaay o koor saye xaaga noona daan we ngim ka jambaar fa nu rik njaay nduur wo e ngoor ke ngima tel waare layo gees ñaay jambaar ne rodiida ye Eh, ngor kenge no yongi ma hakelware la yoges nyai jambar nero didae yàgg maar kon foofu lañ koy yemale ak Equivox TV li ma la wax làmb 100 pour cent la ay image yu leer originalité bul sonal sa bopp Equivox laa lay wax ak Babacar ak yàgg maar li nga fi dégg di ko gis pour nga gis ko feneen a ah, niw ma du am de mais dina jafe de di nga ko wër ba sonn maa la wax lii dum dañ te du masa dañ yàlla nañu yàlla defal jàmm tappe xol yi ni ko maam da baax doon waxee may ñëpp jàmm barke nu bi sallallahu alayhi wa sallam barke mag ñu baax ñi waaye yàgg maar faw ma ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi ndax xam nga lu tax daa baax xol ba leer te mu nekk maanaam réew mi xam nga am na président waaye sëriñ Muntaxa Mbàkke nag taxawaay ba mu taxaw yaakaar naa ne ndax yow mi ñu dénkam réew sax est ce que di ko mën a taxawee du ma ko foog waaw faw mu bàkk lool du mën a ñàkk kon sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg maanaam yaatu na yaatale na yërëm na yërëme na te itam nag xol ba leer na muy sëtub Serigne Touba waaye mbay Mbaye man suur ca Tiwaawoon moom itam noonu la taxawe ka ca lew na ñaseen ka ca na ka ca Ceneba ba ka ca église ba parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yàgg yàlla ñëpp am jàmm waaye Luc Nicolaï bu ko kenn fàtte bu leen ko jaawale ah wax naa leen ko de mardi ginnaaw suba le 6 ca Sen TV Modou Lo Ama Baldé jàkkaarloo war a waxante Equivox su day toog ak Babacar ak ñeneen ak ñeneen gars yi bu leen ko jaawale lamb 100 pour cent laa leen di jox duñ ko rax dara na leer ba beneen yoon